nga koy yéene li nga yéene sa bopp ci loolu la Sëñ Tuubaa sos yoon wi ba noppi nag ñuy jëfandikoo diine jii fi Sayyiduna Muhammad indi kem nii ñu ko jotee sunu kemtalaayal kàttan di ko jàng di xàmmee farata yi ak sunna yi makruux yeeg mustahab yi di jëfandikoo diine ji niñ ko war a jëfandikoo di ko pratiquer waaye téye sunu taalube nag ndax ak taalube sëñ Modou Moustapha Mbacké nee na mooy lislaam sëñ Amadou Lamine Diop na moo toog di waxtaan ak fere yi ci diggante ak taalube ak lislaam ba mu yàgg sëñ Modou Moustapha nuyoo daal di toog bi sëñ bi dalee sëñ Modou Lamine Diop Dagana ni ko dañ doon waxtaan ci diggante ak taalibe lislaam ñu bëggoon ana lan nga ñu ciy dolli Mbàkke Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ni tekk ba mu yàgg ñu ko Mouhamadou Lamine ak taalibe lislaam dañuy lenn lu am ñaari tur ndax dégg nga ko sëñ Mourou Moustapha Mbàkke ak lislaam dañuy lenn lu am ñaari kon murit bi mooy jullit xàqan bi ki ñu wax ni mooy jullit xàqan kooku mooy murit waaw murit bi mooy ki nga xam ni kenn du gis ci moom lu muy xeebe yoon wi murit bi ki nga xam ni du jëf jëf juy doyadal fi mu bokk murit bi mooy ki nga xam ni saa bu jëfee képp ku baax bëgg mel ni moom dinaa koy faral di wax nag sama gaa yi dinaa leen wax ni maa la gën sëriñ moom jaratu la wax da ngay fexe ba mel noo xam ni boo jaxasoog waa ji mu xam ni doo moroomam mu xam ni ki la waajal ak ki ko waajal bokkul rek ki saa bu ngeen jaxasoo mu xam ni doo moroomam ci lenn lu baax dina xam ni ki waajal ak ki ko waajal bokkul waaye maa la gën sëriñ verbalement doy na nañ ko jëflante rek bu nu jëflantee rek rek rek ba ci kanam dina nu xam ni ñii ki leen waajal bokkul ak gaa yi Sëñ Tuubaa bu fekkee ne li mu la sant ci nga ne bu fekkee ci lim jàngale woon nga nekk doo am moroom yow doo am moroom ndax moom ci lislaam rek la santaane ku fi ne dama koy faral di wax damay wax ni def na lu ne def nañ ko lu nekk waaye lu luñ ko mas a def ak lu mu mas a def lislaam a tax mu def lu luñ ko defit lislaam a tax ñu def ko kon bu kenn génne ko lislaam lu coow li bëri bëri bu ñu génne borom Touba lislaam parce que li ko lislaam jaraloon nag mosunoo gis ku ko lislaam jaral de bi yàlla kenn la di jar bakkan sëñ Touba moo joxe bakkanam fii ci ndar yàlla kenn la mas na fee jar bakkan fii ci ndar te yàggul yàgg yooyu yàlla kenn la booba bakkan lay jar ndax bi tubaab bi nee maay seen borom mii lijjanti mbir mi mbir yi wax dëgg yàlla sëñ Touba nee na damaa déglu booba bu fekkoon nit la moom borom tubaab bokk na ca ña fa gën a néewi at nee na waaye dama leen a déglu ñu wax ni moom mi ko wax xam na ni waxul dëgg ñun ñi mu ko wax xam nañ ni waxul dëgg waaye ku ko weddi faatu de sa bakkan xaj na ci de nee na bi ñu d'accordee ni ku ko weddi faatu laa door a jóg taxaw ni ko kàcc na ñu demee ba confirmer ni ku weddi li tubaab bi wax dee laa door a taxaw ni ko dem waxoo dëgg kàcc nga kër dab yi ci ndar la xewe yàlla kenn la di jar bakkan suñ Tuubaa rek a jël bakkanam teg ci taabal ji gaaral bu demee ba neex nag nga bëgg a yem ak moom dangay indi sa bopp problème rek waaye saa yoo xëyee gis loo xam ne kii du sama morom barke borom Tuubaa ku yàlla dimbali ba nga jaar ci kaw télé bi di daw ba dugg njaareem romb kër kër gu mag xool kër gi surface su kër gi di ko jeexal gis jumaa ji ci sa càmmoñ da nga xam ne ki dëkkoon fii du sama morom ak ki dëkkoon ci biir kër gi di nga xam ne du sa morom ak kooku bëgg a tëkkaleel nag di nga xam ne du moromu kooku jumaa jooja nga xam ne am na quatre-vingt-quinze ans ci ren tey la gën a méngoog jamono jumaa ji jumaa ji biñ ko ubbee 1924 ak fii nu toog am na téeméeri at yu manqué juróom demal tey la jumaa ji gën a méngoog jamono borom bee kër googu xool surface bi ni mu toll nga jeexal ko gis jumaam jooju ci penc moom barke xaadimu rasool loo baax baax baax di nga xam ne ki woon fii du sama morom te bu la yàlla dimbalee ba nga dugg ci ëttam bee ko yàlla def tey fee mu ne waaye waaye yaay xam ne du sama morom dëkk boo xamante si nii directif yañ fay joxe du jóge ci gouvernement lu cher lu ngeen fa gis gouvernement defu ko amul lu cher luñ fa def lu fa gouvernement def mais murid yi bu fekkoon sax bu fekkoon suñ tubaa suñ tubaa xalaat nañ ci moom rek ci saayir waxuma ay baatin mais saayir rek maanaam bi ñuy ubbi jumaay Masaalikul Jinaan bâtiment yi ñu ngay jóg ca université suñ tubaa ba est nit ñi ñu ngi bàyyi xel yooyu ah def ci projet bi ay milliards inauguré goo ko bâtiment 37 milliards ay batiment yi 37 milliards war a génn fële ak nitam ni mu bëggee alal ak ni mu xamee bu amee alal fan la ko war a def ah doomu aadama ni mu bëggee xaalis moo tax léeg-léeg nga gis ku mer naan addiyee corruption la naan waaw sëñ bi par force ñu wax ko parce que xam nañ xaalis fan la toll ci nit ñi alal ci xol la sax mais ñun heureusement ci ñun xam nga lu tax mooy fi xaalis war a toog borom Tuubaa toog na fa ba ci xol lay sax te ñun borom Tuubaa nekk ci suñu xol yi moo tax murid yi mën a construire lii nuy construire mais li nuy construire ci saa yit boo ko xoolee la ngay xam ni borom Tuubaa amul morom ñi murid yi def rek war na laa wax borom tubaa amul morom parce que du lu kenn mën da ngeen a gis ku leen toppandoo ah 1927 ak fi ñu toog mas ngeen a gis kër kër goo xam ne rek un milliard la gun fi liggéey ni lii lislaam a ko moom ay julliti ko liggéey te du yoonu murid mas ngeen ko fee gis fii Sénégal waaye léegi nan la fi borom Tuubaa di doon morom nag xaw ma dégg ngeen li ma wax de mais dëgg nag ci ay nopp lañ koy dugal quand même ah luy jar un milliard lu nu defal yàlla ni lii yàlla lañ ko defal un milliard lay jar génne yoonu murit fii Sénégal diggante bi Sëñ Tuubaa jógee 27 ak léegi lu fi jar un milliard lu nu defal yàlla ay jullit jëfal ko yàlla ñu ni moo ngi ay jullit ko jëfal yàlla un milliard lay jar te nu yoonu murit fan la am Saaliu Samb nag lii rek tax ñu koy ŋàmp parce que moom dëgg daf cee xamul jaar gauche ak droite da wax waaye lu neex waaye wax ma ko man baal naa ñëpp xam nga lu tax ma baal ñëpp mooy lu ne nañ ko wax Saaliu Samb waaye kenn du wax li wax du dëgg mer naa ci li mu wax nag mun ko wax waaye li mu wax du dëgg doo ko wax de loolu rek laa doon bañ lu dëgg laa doon bañ man waaye nañ xool nañ dellu ginnaaw xool kon kay Serigne Touba amul morom amul morom ji yàlla nu ko wan dëkk bu mel ni Touba amul ci réew mi dëkk bu mel ni Touba Mbacké amul ci réew mi environnement wu Touba rek ak ngelaw lekk waaw jamono ji maanaam nga dugg Touba rek benn instant ni mu lay transformé yéen xam ngeen li ma leen wax même pas une heure de temps nga départ Dakar oto bi xëlu une heure de temps nga wàcc ci dëkk boobu rek mu transformé sa sa dund. waaw transformé nga mel ni ku génn réew mi gaa yi ñi lay romb ñi ngay taseel ci trottoir yi nga xam ne ñii bàyyiwuma leen fi ma jógee kilomètre deux cent kilomètres ah waaye kenn gisu ko fenn ñàkk moroomu borom Tuubaa gi fépp lay feeñ. fépp lay feeñ barke borom Touba ñàkk moroomam gi ci façon yëpp lay feeñ pencum njaarim boo fa nee yulub boobu nga fay génn benn façon rek ngay gis amul feneen loolu ci dëkk boroom Touba yi rek la am dëkk bu borom Touba moom boo fa duggee da ngay xam ne fii borom Touba ko moom dëkk bu mu mën a doon te borom Tuubaa moom ko boo fa duggee da ngay xam ne fii borom Tuubaa ko moom maanaam da dugg ci dëkk bi rek sa sa ruu gi mooy warmaal dëkk bi par force waxoon yàlla nag ni ko jaxal buyuti kullaha masajida sama néeg yëpp def ko muy jàkk loolu nag yàlla nangu na ko moom moo tax jëmmi Tuubaa ci boppam day mel ni da ngaa ne ci jàkk rek waaye koo xam ne nag koo xam ne nag amul benn seconde bu xelam di génn yàlla foogu fu mu nekk jàkkal Sëñ Tuubaa lu mu mas a wax justifié na ko defal sama barab yépp muy ay jàkka te moom xelam du bàyyi yàlla te jàkka ku ci nekk wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada jàkka pour yàlla la kenn du fa woote lu dul yàlla waa ki nga xam ni moom fu mu nekk moom yàlla lay woote kon fu mu ne jàkka loolu nag borom tubaa rek la dalan ah. ku dul moom mas ngaa koy sa bopp gont ci yàlla damay wax wax bu xorom damay faral di wax ni garab gii yàlla saxal ku dul sëñ tubaa mas ngaa def lu ci dagg xob ndax dégg ngeen ma ku dul borom xaftaan yi mas ngaa def lu dagg xob ci garab ya garabu yàlla bi moom rek ci saxoo sotti ndox waaye yow mi saxaloon garab gi nag kii dagg xob ak kii sotti ndox yàlla di leen yemale moo tax sëñ Tuubaa gënal yàlla ndax dégg nga ma waaw moo ko wax de moo ni sahida liilaahu bi annahu ahab lii min siwaahu wa nabi bandlah sëñ Tuubaa nee na seen borom moo seede ni ku dul yool màkk màkk ko gënal moo tax ma misaale leen ko garab boo saxalee garab kii di sotti ndox kii di dagg xob waaye waaye doo leen yemale yow borom garab doo yemale sotti ndox ak kii daggi xob ki Sëñ garabu yàlla gi sotti ndox rek la ci xamoon gaa yi dinañ sotti ndox sax waaye léeg-léeg ñu juum dagg xob Sëñ Tuubaa moom mës dagg xob <laughs> mooy ki mës ta dagg xob ci garabu yàlla bi Cheikh Saliou soxna Fat Jaxate na sëñ bi daa wax ne naa ci wax ñaari baat door a joxe rajo bi daanaka wax waxtu yu jege na waaye moom rek moom rek sëñ Saliou rek bu yomal xiyaamee ñëpp dem toog sëñ Saliou rek génn borom Touba denc yoonu géej gi denc liggéeyub xasida yi denc mës ñàkk mës a fàtte yàlla gi denc ñàkk mës a toog ci suuf denc ñàkk mës a xasanu ngir yàlla denc ñàkk mës a toxoñu ngir yàlla denc ñàkk mës a sol yére yu am poos ngir yàlla denc ñàkk nelaw ngir yàlla lépp sëñ Touba denc ko Cheikh Saliou Mbacké génn mu ni kii maa ko meññ def ko nii mu defal yàlla lii ci alxuraanam ji sëñ Touba am na daal moom rek doy na borom Touba ndam sëñ saaliw képp képp doy na Cheikh Ahmadou Bamba ndam yowmal xiyaam alxuraan ci Seydina Muhammad la tàmbalee wàcc ci la wàcc ba jeex Makka la tàmbalee Medine la mujje gannaaw yonent bi lañ ko yaxal mu nekk ci diggante ñaari feggu am ñaari couverture ci xilaafa Seydina Abubakar Siddiq ka ñuy wax Zeyd ibnu Sabit moo ko dajale kaamil booba ca xafsata doomi Seydina Omar la des ja nga xam ne yonent bi yoroon na ko soxna Seydina Ousmane moo ko waat def ko set exemplaires yóbbu ko ci penc jullit yi kon ñun buñ jotee ci alxuraan Seydina Ousmane lan ko war a sante waaye ak loolu yëpp kaamil yooyu yëpp ñuy dox ba Seex Salium soxna Faat Jaxate ñëw jamono ñëwee jamono njaareem gi taxoon Sëriñ Tuubaa wax ni raamu masiri ila njurbel la daal la sa tin law ayenu sirrama fi sayri maaraamu parce que dañ doon andi Sëriñ Tuubaa résidence surveillée pour nasaxal l'islam Cheikh Saliou feeña moo tax mu koy joxe naan leen maa ngi fa jëm de waaye bu xamoon la ma fay amee du ngeen ma fa yóbbu de waaye waaye ku yóbbu ci dëkk ngir nasaxal sa diine nga am fa ku mel ni sëñ Abdoulaye am mel ni sëñ am fa ku mel ni sëñ ñooñ perte nañ tubaab bi pexeem joyul douze mille personnes yu bind kaamil te xooluñu ko mas ngeen koo dégg ci jenn daara ci lislaam douze mille personne fukki junniy nit ak ñaar ñu bind kaamil yoo xam ne amul fóot te xooluñu ko bi ñu koy bind ñu bindee ko ci sa daara yaay jox lekk yaay jox naan yaay solal yére yaay fay jàngalekat yaay joxe lal yi ñuy tëdd yaay tabax daara yi yëpp yëpp sa propre argent yow ba nga am douze mille personnes yu bind kaamil te xooluñu ko fan la am ci Seex Saaliw rek ko am xanaa loolu doy na ndam borom Tuubaa maa fi indi ku ku mokkal loo douze mille ba nu bind te xoolunu doo ko gisaat ci lislaam de ca yonent ba nag ba fii nu toog gisoo leen koo xam ni génn na ci daaraam douze mille kaamil yi ñu fa bindee te xoolunu ko amul sëñ Saaliw rek la ko yàlla defal kon doy na ndam borom Tuubaa sëñ Saaliw doy na sëñ Tuubaa ndam ah, alxuraan kat moo fi gën a màgg lu gën a màgg alxuraan kenn da koo mës gis borom téere yi tafsir yi sax ku mel ni Ibnu Abbas dafa wax ni euh, moom du wax yàlla melow yàlla la moom alquran sifatun min sifatillahi ñu wax ni wa xarfuna alwahid min alqurani afdalu min nabiyina al adnani benn xaraf alquran moo gën sayyiduna muhammad ak sayyiduna muhammad ni mu gënee benn araf mën koo gën ci alquran yow nga defal loolu yàlla ci alquran da nga mën a am morom te kat sëñ Saliou daraja yooyu yëpp nag mas naa yegg sax ci laaj nit ni ko ndax xam nga janaab mooy muus mu ni ko dinaa koy gis ci kër gi mu ni ko bu rëbbee ba war a jàpp danaa tekk door a fettax mu ni ko seetlu naa loolu mu teg loxo bi ci dënd bi ni ko diggante boobu nun Saliou mii lay laaj ndigal bu ko ko joxee mu door a jàpp mas naa yegg foofu ci martaba waaye bu gisee turu borom Touba ci leetar day ay ay ranqooñ moo lay wan ni gis na turu borom Touba kan booy wax ci kanamam ba ni ko sa waajur wu baax wa Seex Ahmadou Bamba ab jël moo lay wan ni yow tudd nga borom Tuuba tur wi la mësta nangoo dégg attanu ko moom sëñ Saliou attanu loon tur borom Tuuba bi boo ko bindee jox ko bu ko liiree daanu jël sooy wax ba tudd borom Tuuba mu daanu jël ak ki sëñ Saliou doon ci yàlla nga xam ni cëram bi sëñ Tuubaa ko seere bis bi mu gënee jamono moo ne woon sëñ Amsatu Jaxate làmb daal la te ab daal bu nekkee Sénégal nga nekk Australie bu fekkee taalibeem nga bu la melentaan di dox bu ko neexee mu faxas ko te doo ko yëg ab daal boo doon lab ca Europe tudd turam mu nekk fii du yàq waxtaanam te dina la génne waaye bala ko kenn doon am 40 ans sëñ Saliou nag bis bi mu feeñee la sëñ Tuubaa wax ni garaat bi la ñëwaale waaw wax na dëgg sëñ Touba xam nga moom ab daal mooy vice président wu xutbu samaan moom lañ ko mën a tuddee mooy vice président wu xutbu bi xutbu bi moom mooy président wu àdduna bi ab daal vice président la ci moom cent yu nekk set ab daal moo siy am waaye bala ko kenn doon am 40 ans Cheikh Saliou bi sëñ bi feeñee la wax sëñ am satu jaxate sëñ bi bi mu feeñee la sëñ bi wax sëñ am satu jaxate ni ko garaasu la bu daal la fi ñëwaat nga xam ne bu xut bu jógee jamono ab daal moo koy remplacer ba ba séjour bi maanaam xarnoom jeex cent ans mi jeex bu fekkee day koy day jël relève mu jël relève moom lab daal noonu la demee vice président la ci jamono waaye kenn du ko doonte amoo 40 ans sëñ Saliou feeñ ci bis bi sëñ Touba wax ni garab bi la ñëwaale sëñ Touba nag loolu la ko yàlla defal yi koy jiiñ moom daa wax ni ñooñu sama kër la ñuy juddoo askuruhu waxaadali abdala ñi ñu koy jiiñ moom sëñ Tuubaa ñi ko gars yi di jiiñ daa wax ne yàlla def na sama kër la ñuy juddoo ci du ma ñoom ñooy juddoo ci mag ajabani xayru baaxin fihi xattaaba kulli wa raqaa bi ma lii xaada aqtaab aqtaab mooy plurielu xutbu xutbu zaman yii yilif jamono sama kër la dund seen vice président yi sama kër la moom nag kenn xamul lu mu doon damay faral di wax ni koo xam ni fexe nga ba Cheikh Ibra Fall buy ñëw xëm kenn xamul yow la kan ndax dégg ngeen li ma bëgg a wax Cheikh Ibra Fall bu dul woon borom Touba du am kilifa daa wax ni lamb yàlla ajjuma la tëgg gaawu mu xumb lool dibéer lamb ja tas wax ko ñetti yoon ni du ngeen ma laaj ku daan na nunu ko faal ku daan mu ne di wax ku daan duy teggin waaye ba lamb ja yàlla nee na ma jërëjëf ñetti yoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni ma jërëjëf ñetti yoon sëñ bamba di ma jërëjëf ñetti yoon keroog laa raw bët raw xel ah doom man xel du ma daj bët du ma gis daal di man faal dan may yëg daal di wax ne lu nuy yëg kun ko yëgalul noo koy yëgee kooku ki koy woo kan la moom lamb yàlla la wax de waxul lambi gone yi làmb yàlla sax du ko jóg fekke ko mbaa ngay xam kañ la tëggoon waxuma laa nag làmb jata suñu lay gërëm kon kay yaa daan waa ki daan bu fekkee boo ko wooyee mu gëlëm yow la kan jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ Tuubaa du ko nu maa xam kuñ ni yaa ko xam indil nañ la problème subaa kenn du ko xam ku dul boromam raaba maqaam yi an siwaal baaxil karim ku dul boromam mënu koo xam kenn ko xam Sëñ Tuubaa waaye lenn rek laay dénk ñi nga xam ni sañ naa leen a dénk mooy nañ ko ngëb ak suñ fukki loxo te bañ a bàyyi nan ko fixé suñuy bët te bañ a gees nan ko dékk su nopp yi te bañ a déglu leneen parce que ku la déglu leneen mbaa mu gis loo la leneen ba nga yokkat ci borom Tuubaa moom mënu laa jariñ un centime ci àdduna waxuma laa yomal xeer te Sëñ Tuubaa moo man fii moo man fee kon yàlla dimbali nanu nag ba nu am ko nanu ko ngëpp bañ a geesu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf lu dëng nun la lu jub sëriñ bi la noo ko koy sant daf koy delloo jërë ngeen jëf